ba tey benn mangaan moo continué di laaj nit ñi ñuy wax ñuy jógee ak Caire ak Makka ak Baytu Muqaddis ak nit ñi nga xam ne ñooy jógee Gànnaar ak Xawsa yeeg Tilima yi ak xaase yi tamit nga xam ne dañoo ñëw ci sëriñ bi yow mi nga xam ne nag yow yaag sëriñ bi boobaag tey ba léegi lu fa kaw fekk na la fa loolu it moom lañ laaj laaj lu ko waral ngir loolu lu waral loolu ñun waxoon nañu ko ba nga xam ne ñu fay lu bañ ko ca amaat ba fay lu ñëwee ci gàmmo keroog gàmm guddi hajjuma ba set di ajjuma ba guddi alxames ba set di hajjuma yoor yoor ba lañu fay di fay lu dikkal bañ gàmmoo ba bët set dañ daa def buñ gàmmoo ba bët set mottali am see bi ca yoor yoor suñ ñaanee baagal ñëpp jóg topp jóg topp xalifa di am see ba mu dugg ci néeg bàyyi yoor yoor ñu topp ko ba àgg ba mu toog ci nii bayam foofa la fa doon dindi ñëwee ba mu àggee keroog ba toog la baal ba mel ni Israafiilu amul benn jëmm muy góor buy jigéen bu ko xatanti ma ngay woy woy samaaw yi ngeen gis tey ma nga mel ni Israafiilu amul benn jëmm bu ànd ak sa sag kenn kenn kenn ka ñuy wax Ousmane Ndiaye ma ngay dugg jëmm ba mu ne moo fay dugg ci dugg ba mu ñii di ko jàpp ak ñeneen ñu doon moom ñëpp la fa suuf ñëpp la ci suuf booba la ban taxawee ka ñuy wax sëriñ mbay booba la daanu keroog la ko sëriñ bi xakale mooy nag mooy suñ magam pii moo jëkk a dem ci pii ndax am am na keneen ku dul moom waaye kookale moom ci boppam dafa mel ni togg gu ñurut ndax wëcceewut boppam wëcceewut boppam waale ba mu mottali ko moo tax de waaye kooka kay ni koon mooy kii dëgg mooy kii jëkk xàgg waaye kooka nag yuñ pay du dem man ñi ñëpp xam nañ ko foofu day na caa xel moo tax sëriñ mbay mooy ki nga xam ne mooy mbëgam bi ñii bi ko it ci tànge mboq la koy yóbbu ñëw booba gàmmu gi ñu ngi ci nawet bi ñibbee alxames ja bàyyi mu ta ñàkk gàmmu xaas buñ masaa gàmmu ji suñ dikkee mu gàmmu ci néegam yi waa yi tand nit ñi danañ ñëw ñu tand nit ñi duñ ñëw doola la gàmmu maa suñu Ibra Faal ñoo ko doon way bàyyi moo ko doon firi mais biñ doon gàmmoo sax feesuñ ko daara ji sax am xam nañu tey ba guddi jotee ñun ñu ci def ñoo fi def ba bëccëg lii moo xewoon dafay ñëw nekk ba nekk ca nekkee sëriñ Mbaye àgg na ca Kaolack bañ dikkee àjjuma Ibra Faal moom la nekk ca ba muy way booba sapp na keroog la jëf boobu Ibra Faal moo ca tege ci luñ xam te ci dimanche ja Ousmane Ndiaye àgg ca sasam ba ci alxames day ñëw ku ñëw alaaji téré dafa àgg doomam li ñu wax xalifa bi keroog lañ ko tudd kee mooy ngeen kenn ñu def noonu ne ci ñoom koyru ba ba ñu ñibbi mën nañ ñaar fukki ñu àgg ci yàlla mën nañ ñaar fukki nit ak ñett ñaar fukki nit ñooñu ñett ñoom la ñuy dee kaa wax mbir ma dox nag coow li bari lool coow li bari lool coow li bari lool buur yeeg chef yeeg sëriñ si ñëpp ñu këpp boole ko seeni wax ku nekk ak la nga xam ne moom ngay wax bañ demee ba nga xam ne at ma na bañ teg ci ay xat xata ci ñaari xat boobale lañ suñ ci Medina gannaaw ga naar yi ngay laaj ak ñi ku jëkk jëkk jëkk jëkk ci ku weex ku ñuy wax Ahmadu ibnu Nawir xam ngeen ko ak ku ñuy wax Modou Hafiz dafa réer ñii la naxar ñoo jëkk a suubu ci ci jox ko bàyyi boppam ci ay sëriñ Ahmad ibn Nabi xam ngeen ko dinay nekk Ndakaaru Mohamadul Hafiz moom dafa gaañu ñaari naxar ñii ñoo jëkk a suubu xagg ca yàlla bàyyi di leen si karloo ñii dem nag ñii dem nag naxar yi di ñëw nag di ñëw benn benn di ñëw benn benn xawte yi fu ñu ñëwee mooy xajam gu jëkk ba nga xamee ne xaj na xaj gu jëkk ba muy dem fekk na ba mu demee la daje foole Abdullah ibnu Abbas buur këru ba ñu gis ko ko foofale kooka de moom la ak ak ñu ali kutubi ak ñeneen ak ñeneen ca Makka foofu la taal boobu la tàmbalee tàkk fekk na ci njël benn mat na ñuy sikar ci am néeg mooy ne law xànkam ba mooy ne bi ñu faat yóbbi ne booba la ñu koy sikar moo woo macc yëpp moo dem ko àgg ci yàlla keroog boo ñëw ko mu yéen ñëpp ci néeg bi fii si doon xal ngeen a daj foofu moo ñu ko waxoon de kal leen a daj foofu kal ngeen fu ne ngeen dem fa booba la lawal alaakum muloo kala li laa sa tafasadu gis naa leen ngeen di buuri suuf suuf ngeen di ay buural yoo xam ne dootu leen jeexal dara du leen tax dara te booba day kenn xamul ci ñun bu bul te booba day amuñ luñ lekk wax ja tumaranke la waaye ñu xam ne rek wax na te li mu wax dana am ndax yonent na ko te booba mu gënoon a tumaranke te moom ci boppam li wax ñu xam ne dana am noonu la day ñu leen di mi demee naar yi di ñëw di dikk kanu kanu di dikk mboolem réew yi di dikk loolu de mooy ni nga xam ne ni la réew mi ubbeekoo ni la réew mi ubbeekoo waaye nag ñun ñi xar baax gi bàyyi gën a def nit ñi xamuñ ko xar baax xar baax gi ala ji waay ma def moo gën a foor dox ci kawam ndox moo gën a foor xëy ci jaww ji ndax ñun de fàttaliku nañ ci jamono El Hadj Abdoulaye sunu baay ya naari sharif yi di ñëw daw at ñëw kër Modou Habis kër Baddi suñ ñëwee nee ba ñuy ne kenn du fa ñëwee dugg lu ñu bëri bëri bëri bëri duñ lekk ak ñun dañ ñuy seexlu duñ bëgg a lekk ak ñun duñ julli ñun sax ci jàkka ji seexlu nañu gannaaw gi ñuy dem di dem ba kër Mawlud Hafiz di di de gàddu dépassam di ko raamal kër ba di dikk di ko raamal xam ngeen baddeem baddi mooy ka nga xam ne ba mu defee yaaraaxi ban xalase baadi jamian wa muy itam bi bi jumlatil agwaani balliqan seexanaa salaama muhibbin saabitil wajhi daayimil ayamaani ba mu ko bindee ci gànnaar ci mbind mu tooy ma la ko sànni mu dem ca xabru Seex Tijaan ñu ñëpp di ko jàng ci mbind mu tooy ma foofale ku le doom yaa ngi raam Cheikh Mawludi Taal damul abi dikkee mooy taaram moo daa wax naa waa janaa axbarani sayyidul wujuud danaa ko gisi de bu ci wóorul kumpali ban demee ba faas siyaara Seex Tijaan góor yëpp a muudul abi dawal Cheikh Mawludi Fall jël ko ko ba ko mu Cheikh Mawludi Fall jëlee sëriñam ba na ruum